jéggal nu tooñ yépp sol nuy barke ngir Tuuba rànnaate jébbulu jébbalaat njaboot di maam nangul nu njëbbal di sol nuy ndam Sëriñ Tuuba ci yow la ni naane leeru barke yaay ki nu gëm duyal magan taxaw fi nga xamanteni ni moo di xayma bu wa musante taxaw ak eh, jeewrin sayidina Omar ak eh, jeewrin Soxna Penda eh, nuyu naa len bu baax te di len ziar jeewrin ma ngi len nuy bu baax te di la ziar. bu baax di la sant bu baax baax rek ci taxaway aju ci magal geek waaw ak mbollem lu ngeen djublu rek ci wat ko jaam ñi ci taxaway yi nga xamni mi nga am fi ci daru ñu koy wax forage baylat ñen ñi naan Gédé. waaw kon ñi ngi santat bu baax rek ci taxaway bi nga xamni aju na ci magal gi nga xam ne tey mooy 17 safar ñuy waaj nag jëm ci 18 safar waaw di la bàyyi rek euh, nga àggale bi. mi ngoog euh, ginnaaw bi nga xamante ni euh, waajoon nañ ko boobu ba léegi premier safar bi ba tey jii ci 17 safar ñu jëm ci li nga xamante ni moo di bis bu màgg bi di 18 safar di grand magal de Touba nga xamante ni mooy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul nga yàgg ci nga xamante ni moo di biir kër gi yàgg ak suñu Khadim Lo Gaydel borom daal naka ngeen ko daan waajalee bi ngeen commencé màggal ba junni tey ji Wow, lat nga ma loo xam ne daal xam ni tomte ci moom dana dana yaatu waaye nag xanaa di ko tënk rek ci waaw bañ ko dalee def ak sëriñ bi tey ku xool fii ni mu bindoo nga xam ni wax nañ ko du benn du ñaar maanaam benn cin sax daan nañ ko sóor fii am jafe-jafe ñu ko xewul waaw nga xam ni gi fii la daan am ci biir kër gi boobu génn guñu waaw kon nag loolu bu bu ñu waxul la ca biir sax ci gàttal rek ku ñëw xool ni mu bindoo tey te li lay wax yàggul di nga ci taq bu baax ni kon moom sëñ Tuubaa nangul na ko moom waaw loolu daal bokk na ci li nga xam ni mën nañ koo junj ci ki nga xam ni ñëw na gis mu toll nii tey waaye xëy na am na loo am ump na ko démb ci fii ni menoon waaw waaj gi nag ñun benn baat rek lañuy ñuy sëriñ bi di fàttali ci màggal gi muy euh, li sëñ Tuubaa ne képp koo xam ni sama mbég sa mbég la su bis bi dikkatee nag ma santale yàlla ci lu ko dalee ganaar ba gëléem waaw bul xeeb ganaar waaye bul yéem gëléem waaw kon loolu li muy tekki mooy sëriñ bi moom ci pas-pas rek la ànd ak ñun waaw ndax def na ko du benn du ñaar dërëm boo xam ni seede na ni dërëm bii junni bi dërëm bi lay seede daal ne dërëm bii moo gën junni bi kon loolu pas-pas rek moo tax waaw kon nag mm, ñun sëñ bi moom baat boobu defe naa ni doy na sëkk ci murit bu nekk rek soo ndax ku toll ni sëñ Tuubaa bu ne képp koo xam ne sama mbég sa mbég la rek waaw kon màggal gi mm, bokk na ci li ñuy fësal ni lott na ci moom mu ne li ko yàlla di defal ci bis bi at bu ne lott na ci moom moom sëriñ bi cantuk boppam moom ci bis bi. te ku ne xam na ni nag euh, sëñ tubaab moom bu jaam ñëpp andoon sant genn ak santam wat na mboolem bu jaam ñëpp sante kon nag bëgguñoo dimbali rek mooy li nga xam ni moo moo waral bisu 18 safar gi nga xam ñu ngi koy waaj jëm ci muy suba incha allah. waaw sëñ bi nag ci noonu képp la ñu yoree ni nga ko gisee ñu taxaw ak jëwrin pend ak ay jëwrin ñi nga xam ne ñëpp ñoo ñu wër waaye waaj gi ko waajee sago moom waaw ndax bis la boo xam ne loo ci def du doy loo xam ne nag loo ci def du doy def naa loo ko wàcc doyul waaw ñu ngi tuub bu baax rek ci ci <laughs> ci guddal gi waaw di santat sëriñ bu baax a baax rek waaw te xam ne lépp moom képp la waaw ñu ngi sant bu baax a baax a baax. jërëjëf jëwrin Seydina Omar maa ngi taxaw ak ki nga xamante ne mooy jëwrinu soxna yi ñu koy wax euh, jëwrin Penda jëwrin maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax yaay booy ñu ngi lay ziar bu baax te di la ndokkee ci bi. di ñaanal sunu sëriñ sëriñ Xaadim Lo Gaydel borom daam sunu borom yàggal ko fi lool tam ànd ak ak weer. Euh, yi nga xamante ne yéen soxna yi yéen féete ci wàllum waañ wi yéen a féete ci wàllum marché yi naka ngeen dundee euh, li nga xamante ne moo di si wàccaayu màggal gi Thiès ba nu ñu agsee fii nga xamante ne moo di biir Touba. waaw xanaa di sant rek di santal sëriñ bi bu wér a wér ci tawfeex gi nga xam ne defal nañu ko ñu ñuy ànd ak moom depuis bañ ne tey la premier safar ba tey jii ñu taxaw fi di di safar ci wàccaay gi ak ci lépp loo xam ne rek maanaam yell na ci màggal gi ñu ko ñu ko ñu ci doon dox bu baax baax baax di ci santal sëriñ bi ci tawfeexam ndax lu ñu xam rek wala lu ñu maanaam lu ñu kii ci liggéey bi rek moom sëriñ bi moom moo ñu ko defal moo ñu moo ñu nàmpante ci liggéey bi moo ñu xiir ci bëgg sëriñ Tuubaa moo ñu xiir tamit ci liggéey bi moo ñu jàngal tamit nan la ñuy liggéey Serigne Touba kon lépp day delluwaat ci moom boobaak léegi nag ñu ngi ci di góorgóorlu lu nu mën ak lu nu mënut ndax màggal gi moom loolu rek la laaj lu mu mën ak loo mënut rek ñu defal ko Serigne Touba santale ko ci ci bisam bi nga xam ne moom la woote fii ci Touba. Mhm. tey xéwal mën naa xam ban ban ban plat ngeen def tey. waaw tey nag comme tey ñi dañuy 17 safar ñun moom dañoo togg ceebu jën ñu def ñaari palaa yi bu xonk ak bu weex ku bëgg bu xonk ñu defar la ku bëgg tamit bu weex mu defar la waaw. naa ne xayma waa muusante ceeb nii nee na fi. waaw ceeb daal nii nee na fi moom tarkaal la. <laughs> mi ne moo di eh, ceebu jën bu xonk weeg bu weex bi. kon nag ba tey ma bàyyi leen rek ngeen daal di wéyandi li nga xamante ni moo di lépp lu jëm ci wàccaayu bisu 18 safar bi man tamit ma daal di ànd ak sama équipe rek ak waa Gaydel TV ñu demaat ci yeneen i xayma indiwaate rek yeneen i préparatif lépp ci fii nga xamante ni moo di Touba kër Serigne Khadim Lo Gaydel borom daam